ma ngoog euh, li ci yéen kaay ñu fas yéene ko door rek euh, Walf Quotidien bi ñu xamal ne njiitu réew Macky mu ngi ci tànk euh, bàyyi Sénégal woon ginnaaw Sénégal jàpp nañ ne élection présidentielle yile la bu 2 avril jotee dina tàqalikook askanu Sénégal ci kilifteef ga mu yoroon ci réew mi bokk na ci maître Sidiki Kaba xamle ne njit réew Macky Sall saay bu demee bu jógee ci bopp réew mi ñaari fan ci weeru avril njiital assemblée nationale mun na ko caa wutu bokk na ci leneen lu fas ci Walf Quotidien Anta Babacar Ngom taxawu njàngale mu kawe mi mun a dooraat rawatina université yi te jum UCAD e ak yeneen ak yeneen don lu metti candidat bi yéen a kabidi las ne maître Sidiki Kaba wax na xamal na askan wi ne saa bu njiitu réew Macky Sall jiite tur réew mi ñaari fan ci weeru avril ay pexe yeneen mun na am njiital assemblée national mun na ko ca wutu mu ngi ci yéen a kabidi euh, las yéen a kaay l'évidence mu ngi ñuy dégtal ne njiital assemblée euh, moom Mamadou Mame Diop mun na doon ëllëg njiitu réewum Sénégal wutu njiitu réew euh, ci bopp bopp réew mi yéen kabi di l'évidence gis ne loolee cadeau la gu ànd ak tooke ay pexe la yoo xamante ne njiitu réew Macky Sall ngi koy nas ci euh, jamono jile yéen kabi di source mu ngi ñuy dégtal waaju ci euh, fippu kuréel la bu bees goo xamante ne boot na waa société civile ak yeneen kuréel la tax ñu fippu mooy ñaawlu doxalinu njiitu réew Macky Sall ak bëgg ñu amal élection présidentielle ci lu gaaw yéen kabi ne njiitu réew Macky euh, jàkkaarloo na ak ñoo xamante ne xel xalaatul ñu deltu ginnaaw ci seen càkkuteef résistance la C25 F24 ak aar suñu élection ak yeneen ak yeneen la ñu bëgg mooy njiit réew Macky Sall able ci bopp réew mi te élection présidentielle ñu amal ko ca na mu gën a gaawee soxlawuñu dem fu sori nañ ko amal laata ñaari fan ci weeru avril l'info ne fépp la ñu seen bopp euh, bokk na ci ne du ñu may lenn njiit réew mi euh, Macky Sall euh, seen janook taskatu xibaar yi lañu bëgg mooy njiit réew Macky Sall bañ a salfañe Sénégal bañ a ci loi d'amnistie te itamit bana ngoy ci réew mi na xam ne fegal na nguuram jeex na tàkk na jox keneen mu jiite te loolee bu am nañ ko amal ci lu gaaw laata élection laata ñu amal euh, njeextalu mandaam le mandat mu ngi ñu dekkal ne euh, kan ñooy war a sowe ñi nga xamante ne Sénégal ci jamono ji Sénégal mu ngi ci guddi gu bër setagul yéen a ëllëgu réew mi ci jamono ji lëndëm na lool ba tax na yéen a laaj kan moo mun a sowe Sénégal ci waxtu wi le Sénégal sax Bougane Gueye Dany waxtaane na ko jàpp ne ci euh, jamono ji ñu toll duñu ñu may leen njiitu réew mi euh, Macky Sall ay kàddoom la ñu fekki ci turbine Bougane Gueye Dany àndul ci loi d'amnistie Bougane euh, dal na ci njiitu réew mi euh, Macky Sall dal ci woy politique yi bokk na ci ne nañu amal élection ñaari fan ci weeru avril waru ca yegg te buy am 19 candidats yi nañ ci xool kenn kañ ca mun daanaka fal mu doon kay wutu njiitu réew mi Macky Sall ci boppu réew mi Bougane Gueye Dany sàkku na booloo gu mat sëkk ngir jàkkaarloog njiitu réew mi Macky politique yi ne nañu def ndànk ci loi d'amnistie mile saay bu jàllee ëllëgu réew mi a euh, ngi ci seen loxo Bougane Gueye Dany ne way politique yi moomu ñu euh, Sénégal yéen a caabi di Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal projet de loi d'amnistie alerte ga ca am ay borom xam-xam bind nañu seen bataaxal ngir artu askan wi ne buñ ko euh, daanaka daganal ci mim réew ndax lu bari xew na ci réew mu Sénégal lu ko dalee 2021 ba 2024 te ay fitna ak ñu def naka sudul noonu ñu bugg leen a jégal ci anam yu dëppul yoon loolee du fi am armée yéen a kaabi di eh, le quotidien li am yàggut foofu ca tribunalu Ndakaaru ca ba ñuy déglu Ngagne Demba Touré eh, ñi nga xamante ne ña doon eh, daanaka fippu ay greffier ak ñeneen ak ñeneen parquet baa ngi ci seen tànk yéen a kaabi di yor-yor gi xëy duñu dégtal ay lion ñoo xamante ne taxaw nañu woon seen bëgg bëgg Sénégal te jot nañu libéré leen Mati sar Niang jot na itamit ñu libéré ki nga xamante mooy Amidia ak ñeneen ak ñeneen yéen a kaabi di Le Soleil xëy duñu dégtal bilan ga gaal googee suux yàggut eh, ca waaxu Saint-Louis juraloon fitna askan wi ndax lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak eh, juróom-ñaar ñoo ca faatu am na ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ne jot nañ lañ ca suwe yéen cabinet ci jamono ji la ca gën a doy waar mooy gaal gàkk na mu suuxee ak ña ca jot ñakk ñàkk seen bakkan waaye lu ëpp ñaari téeméeri doomi aadama ñoom la ñu wër ci jamono ji ngir xool fan la ñu féete yéen cabinet ubbi nañu enquête ba tax na enquête googee jot na feeñal lu